fiesta. Like feeling people who said you cannot do this, that, huh? Yeah. Still keep it up. Don't give up, man. Yeah, we wish you luck. Yeah, good luck. Yeah, pull them, bro. You must never give up. Hi. Yo, yo. yeah, everybody. Like You speak English? Wow, waaye bàyyi all of that. wolof daal. ah bon moom nini. nga gën a comfortable waaw comfortable. naka am foo jógee. man maa ngi jógee G boy, tudd. Jiboy G Jeng ji ñu ma ne wa Jiboy. Jili G boy. loolu def da deh, dee woi, wala da de rap. No, man rap laa dee def. yee. waaye. ah yaa kan mooy sa kan man suma star mi Bagasse. Yi. Yi. Vara. Viri. Vara. Go on. Yes, Lord. Yeah. Bismillah, my team. Right till him. Andu mark till him. finger and my team. Fële fi ngeen foogewul gise fi ngeen xoolewul ji booy la kenn du dem ma des picc bi naaw dung xëyee ruus dëkk ba mu jëma soriwul afrisel delloo buum ca mbooy booy ga ñëpp xam lu góor def warewul bul yeegal yi nga bàyyi si capitaine Mike B ma kepp Mike B xàll yoonu rab bi xippi leen bëti booy taawi leen nopp yi ma dugal kàddu dëgg yi taxawal karaw bopp yi la weddi kuy sampu sempi racal fi di jomal fii gi wengal xaaf bi sen seen bi mbokk bi sa gëmul hip hop bi di nga ma sori yow <laughs> Yo, yes, yo. yeah dama bëgg a teg ci time bi ñëpp nangu ne maa fi ne dama bëgg a nekk di rap ba ñëpp nangu ne maa man foog ma sign di sign ba mel ni big fois ci game foog ma nekk rap bi fi gën a ndaw teg ci temps bi ñëpp nangu ne maa fi man dama gën a gaay ñii moytul nigga bi la naan nigga bi dafa cool te sedd dee bu sedd laa yoratul léegi damay kutu ba mu sedd man du ma rendi mu naaj ci kutu ba mu sedd people bi nangu na fa ñëpp ñooy validé man fu ma romb aliña sañ ta bañ la di nga validé game bi ñoo fi yàgg a teg yàgg nañ ci teen bi foog baak fekk ñu fi ñun duñu bàyyi flow yi ndaw ndax riis dañ ci bokk kon wiiri wiiri jaari ndaari tey ma diw saxaaru kaari daari la sukaabi ji la gaay yaaga waari that's ma comment ah. ma stand <laughs> waaye yee man suma xelaat waaw ok waaye suma xalaat mooy maybe rap bi words yam fa waaye but arrangement bi dafa des dëgga yeah because words yaa ngi génn maa ngi dégg maa ngi for but comme su ñëwee si technique rap bi comme nekkuloo di follow comme yooni rap bi daal waaw but words yam fa sometimes nga def technique waaye soo jógee si technique bi dan dee demaat si leneen a leneen you know rap bi mu ngi fa words yi ñu ngi fa lu des mooy nga put ko together nga am four line mhm. nga change four nga change aat beneen four muy twelve mu mut rafet na waaye jërëjëf yow laay da nga doon da nga si diggante bi <laughs> ah. da nga doon freestyle si diggante bi like improvise da nga doon improvise waaw maa ngi feel ne comme yaa ngi rap waaye nekku comme loo xamante ne da ko bind dafa mel ni comme yaa ngi ko Ah, I ngi not need improve waaye dëgg parce que binduma ah I feel that. waaw waaye competition la sooy ñëw Danga nga League package boo assist competition because lii is five hundred thousand eh, eh, dollars. Yeah. so mënuloo ñëw di improvise pour five hundred thousand. am not ñoo hamle ne dañ pare they have full package. they don't even have the time to improvise. they will come and kill it dëgg so loolu noonu da nga ko war a def sa mind comme next time so ñëwee da ngaa ñëw ne yeah I came to kill it. nekkul am I improvise. kirib kar Africell soo leen lifinee nii sax duñ la yërëm jox la 5K bi de gars dañuy aju. so you put your vote. waaw ah, can I just say something quickly. yeah. Ah, nga ne Big Faa moo nekk sa role model right. as eh. artist as a eh, eh, rapper. wow so I was bi nga waxee I was expecting at least di nga and energy similar to Big, big Faluma Jack. yeah, I understand. But like, this is this is this is not. I mean, you're not giving a speech. Mm-hmm. Nekolo di a speech. Danga neka di rap. So don't you lem sa lohoy no no hamga tao meli you know. Bela bela bela tao hamga. Danga ni danga ni pur You need to be present. Yeah. Hamga and you know express sa bopa nicely. Yeah. Yeah. At feel na ne tamit secondly. Edna with linga am tula suñ la ya? ya, ya iya. iya. you know suñ la kan si yoon di nga am lu bari yeah yeah ni lu ñoo wax it's not pour you know pour me comme mu way just pour luñ luñ bayi xel si yow loolu la laa wa waaw loolu am la. wa yeah right foog nga jege kenn rek. koo xam ne dina la mun a help yeah. wa dëgg ndana soo amee jot ñu war suma say. wa ok ala boole xaamaan mu la bi. waaye mais sax. yeah ala hala burra bu ragal loola. bi vote Yeah, Ndanan? IGBS. it's <laughs> a yes from us too. Okay. Yes? Mansa? The no? Viribara? Yep. Another yes. <laughs> Second time I yes. Okay, suma partner mun nañu dulu lah yes. Yeah. So that next time maybe suñ la gisee xëj na nga xana gën a. Ba yes lan la miin. Hmm. That's a yes. Du ne waaw lan la yees bi tekki waaw waaw pour nga def lan gën a def lu gën a waaw te correct comme ngeen ak ma comme gën a pousse pour ma xam nga pour beneen yoon su ma ñëw correct indi lu tegu correct parce que comme tamit non gis naa fi non waaye mu ngi maa woon ne waaye dóoruñ la non waaw dañ daanee pour nga jaar waaw waaye gis naa comme like gis naa comme like non bi ak yéen waaw léegi muy mel ne comme ni ma Can I listen to you on that? Okay. Yeah. Wow. Now listen, I'm giving you a no. Yeah. And I'll tell you why. Mm -hmm. When you started your song, you sounded like you were doing a, a recital. A poem. Mm -hmm. Sounded like a poem. So next yeah. time to me, it felt like you're doing an Islamic prayer. The slums. Slam and rap, they call it All right. Let me give you the facts. I know that there are rappers yeah, here and they're excited and you know everybody's cool and everybody's hype at that. But then this is half a million dollars on the table. I don't like calling it five hundred thousand dollars. It's actually half a million dollars. That gives it more weight and impact. Yeah. If you want to climb on this stage and you want to do something that is going to worth five hundred thousand dollars or half a million dollars, yeah. you have to come up with something better. Yeah. You have to come up with something far better. Now I'm not telling you this because I, I actually like what you did, but I did not like your performance. I did not like the fact that you started the way you started. I felt like giving you some more time so you could express yourself and so that I'll hear some resounding responses from the audience, but I didn't. Mm. All right? If we give you 30 seconds, mm. you are supposed to blow this place up. Mm. Yeah. If I give you five seconds as a rapper, even your entrance into this place should be able to light up this place. Mm. But you didn't do that. So I'm giving you a no, and I'm hoping that the next time you come here, yeah. I'm actually expecting to see you go up to the stage of the actual competition so that I can see you perform with a band. And then I would know whether you're actually worth half a million dollars or not. So I'm giving you a no, but I want you to go home and get yourself ready for half a million dollars. Yeah. All right? Thank you very much. What's your name? I'm Tufamba. Fiesta.